et spécial Oumbre 2024 ak seen agence de voyage Munir Travel ci umrak ren spécial promo lañ leen ci indil du 23 novembre au 2 décembre 2024 ay tarif yu yombo boo ko ñëwul fi ci Munir Travel ci 1 million 300 000 simplement ci ngay am sa billet aller retour am ci sa visa umra ñu gérer ci sa transport gérer ci sa petit déjeuner ba noppi yóbbu la ci hôtel 3 étoiles Munir Travel donc moo man profito profitoo leen ci promo bi ñu leen indil taxolal Munir Travel mo leen di gérer tam seen guide ak encadrement religieux ay ustaas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

40 wala 77 811 40 40

moo gën a tuuti ci lu may def te Rose Cisco mooy sama cinquième jëkkër waaw quatre yëpp maa leen rey kenn ki man maa ko sànni korte mu dee. et alors lan laa ci war a gëm nga wax ma lii keroog tey nga waxaan ma lii Kenza yee eh? Kenza ñaay billaahi su fekkee ni ni nga def sa yeneen jëkkër yi noonu nga def Cisco xamal ni pare nga ndax man maa leen njëkk a dénoncé. Rosé sa benn doomu raam nga ma jàppee wala lan la waaye tamit jour boobu wax naa la lii. donc man bépp bon ak bépp ñaawteef boo xalaat man saa def naa ko mais damaa bëgg Cisco. yow Kenza merde Kenza yee eh, merde laa la wax yow da bëgg sa bopp ba naan damaa bëgg Cisco. te gis nga fii bu ñuy jàpp meurtrière bu fekkee sax dafa am du kenn ku dul Nafi mbay ba Nafi Mbaye ñaata Nafi Mbaye nga xam Nafi Mbaye mi dem voyage wax nga wax ji ndax bu mu demee voyage la sama jëkkër réer parce que doomeram international la Kenza yi eh, kan mooy doomeram Kenza yow laay xool fii kan mooy fi sa doomeram Papa Moussa ci li mu wax léegi nii laa bëgg mu répété laatal encore fois. kan sa dooméram laa wax. man Kenza Mané ku wër dooméram ba jàpp sa nday ndax. dooméram yow mu am yéenay dooméram yi parce que depuis bi ngeen duggee suñu famille ba tey gi jaam jàmm. wax jooju dinaa la tër rendi la li ngay wax. ki man lay mbaj. dalaa mooy. dangaa waroon a yëy nga jàkkaarloog yaayam di saaga su doon mën nga jàkkaarloo sama yaay sax di ma saaga néew nañ fii jëlee dangay say galaat te wee waxuma loolu de li ma wax nii duggul sama bopp xam nga la laa bëgg nga jóg nga jóg ñu dugg si biir nga wax ma lu mën a dugg sama biir bopp yow lan nga séq ak usmaan laa lay laaj. Anne Ba yow loolu war nga ma ko laaj usmaan lan laa war a mën a séq ak moom lu dul lu rafet Cisco gaañu na usmaan taxaw di ma taxaw comme ni mu ko waree sama diggante teeg Ousmane leneen lan moo ci war a mën a nekk lu dul jàmm ak salaam. Xadi man Anna Mbaye de mën naa boole mën naa ñaaw waaye du ma ñàkk fayda mën naa ñàkkit waaye du ma ñàkki du boole ñaaw ak ñàkk fayda ñàkk ñànki du am mara naan du tax ma naan petit bu robinet yi tijjee may rus man du ñàkkal sama boobu fayda de man nañ maa waxal lu ne nag dama ne la li ñuy wax lu nga fexe ba bul ko dëggal li nit ñi wax bu doon dëgg de lan nga séq ak Ousmane nga naan ma ay mooy defar le sama jàppale fii jàppale fële kon yéen a tal ni toog jàkkaarloog secteur di seetaan baa xam ngeen ni kër gee ngi toj. lan mooy toj kër gi lu xew maa jàmm. li ñu doon laam-laame muy aw de gauche à droite man Kenza tey laa ci am lu ma leer. Kenza nag yow dangaa soof mënoo ñëw wax li xew directement rek. Ousmane ak Khady dëgg la dañuy génn. Ousmane ak Khady man. ñaata Ousmane nga xam. Ousmane mii ci biir kër gi mais Ousmane cousin wu Cisco la non yow li nga wax nii foo ko jëlee. maa doon dem ci salon bi dégg yaa ànd ak di waxtaan Xadi di ko confirmer que ne moom ak Ousmane ñu ngi génn lu neex ci biir kër gi. <laughs> eh waay ndaw sàmba lii nag mooy ku dee yaa perte. Euh, Ousmane di dafa bon yees bu fekkee loolu la def. ay xale yi ko gën a nekk doomeram ndax sa jëkkër dee même pas six mois nga nekk di former relation ak propre cousin am vraiment daa sax yàggul ah maman waaw maman doo sili Rose tey duma wax man man awma lu ma wax wax nga dëgg sax nag ndax amoo loo wax parce que neexu si xol sa bi nga bokkal nday ak baay dee yàggul dara cousin yam nekk ci biir kër gi jàpp ay jabaram di leen tëddee da goo à droite neexu ci xol amoo loo wax kay. te wax ji des na de laa leen wax dégg naa ñuy wax ne dañuy jaay kër gi. loolu buñ ko waxee dañuy duul. waaw gis nga kër gi ñu naan na fi Mbay moo ko moom sama mag sisko da cee dugal xaalisam te nag lépp la bind mu ngi ci papa Moussa mu denc. kon da ngay gaaw parce que dooméraa mi ñu ngi jóg. jaru ko. ndax nday jëmbi léegi léegi mu jóge Amérique ñaw gis nga Nafi bay jënd na billet ba pare pour ñibbisi su boobaa coow li day faa ani Ousmane. Ousmane de romb naa ko fii si biti sànq bi may ñëw Nabou Faye di ko defal café. yow doo téye kii. téye ko pour lan. moo ngi dem de. yow yaay ram yow Ousmane lan mo la jaral li yow sa rak de même pas 6 mois ngay doxan jabaram diko ko ya bon yow yaay clochard li la olof nan ku ray say mbokk say non jeex yow amo loy fayé Cisco lu dul mu dé lér na ba muy dund yaa ngi doon raasaatu jabaram ci te deewu Cisco bi li ma lér ba lér sa loxo génn si. eh ay nday sama loxo gis nga bo ñëwatee taxaw sama kanam di wut la dina tégal santa yi ba nga xamné duma sa morom xam nga yow ni la bayyi ni ba nga tollu ni yar la ba nga tollu ni ñom ñom ngay def li mais pas man xam nga la ba nga xam ko yëfu kat ngay def nak moy chaque jour da ngay da ngay changer ni ñoo la xamul yow ku la xol nga ay ëmb ba fiñ toll ni lèr mané bo sax do am doom mandeete nga nag génnee ma si sinon nga sa yi boo ma si defee yow man ak yow du neex si biir kër. Hmm. gis nga mandi boobu yow yaa ko xam ndax mandee tax ngay tiim sa jabaru frère te seexlu woo ko te gis nga nag lii boo ko bàyyiwulee maa la gën a capable gën la egg dem ba Casamance def la loo xamante ne yow dootoo nekkati góor defuma ko muy dara leer na. booy dem nga wax ma ma may la paas déjà mandikat nga xam naa la bu baax. yow sous do ko baye ginnaw bo arrêté wul volé nak di nga mësa reuy nit si erreur parce que dof nga waruma la won top hmm. gis nga man dof bi dafa guma ben acte bu salté dafa guma ben acte bu ñaaw problème bi du yaak kenn man dina ko lijeenti lo loo si bañu bañu mako ci salopard. Assalamualaikum. way yeen seen keur gi ngeen bayyi ni buntu bi mu ne ngap ak dekk bu wore di ken da nekul wala salaamaaleykum waa yow Kenza Wa yow Kenza man maa ngi ni nii batay ba wala danga ma degul won Kenza lan la da ngay jooy. jooyuma de ah jooyoo nii say bët xonk say rongoñ ci sotteeku lan moo xew. aussi damaa xam ne dëkk bi deewal ma dee amul waaye deewal ma torox moo am te man Kenza xam naa ne torox naa ba pare. torox yow lan moo la toroxa sama doole si koo la woon nekku fii Kenza am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur te gis nga nekk ak sa boroom kër nag mu dëddu metti na loolu d'accord naa ko waaye bu yàggee day mel ni ngëma di yàlla ndax yàlla bi fi nekkoon di la jàppale di jàppale sa boroom kër ba nga jàppoon ne doo torox yàlla googu moo fi continuer nekk ba tey danga koy gëm rekk doyloo ko Ouzin man li xew ci kër gi laa xamul lan la na kan mu xew ci kër gi. xaddi bii di tëjoog Ousmane H24 te kenn du ci wax xaw ma dañoo ragal xaddi xaw ma dañuy bañ mu fexeel leen. kan sax nga ne nga ne kan ak kan ñooy tëju. Ousmane moom mooy damay gént wala man man loolu ban kër la xee. Eh? deuxième man lu leer laa ci am te démb ci guddi la mu jumaa teg sama bët. Ousmane dugg ci néegu xadi xadi tej karaket sama nopp ma dégg lolou bi kër kër gi ma nek non non non non xadi paré romb ma ak peignoir mais yow xadi xadi xadi fim tollu ni tamit ket dal li ngay wax logique xadi bu gesto ni yalla mo ndako koo defal jàmm léegi doom boobu noonu ñu ngi lam lamé ndax domu mbedd la wala sisko moko jur lolou paré gul nga ne xadi mo ci teg leneen ah wa kon baxna mbonu khadim musuma leer de waye tay ji ni ni ni la xamne ne bonam plafoné nak khadim meunatu la def lu raw lii. dama fekk leen néegu Nafi mbay mais néegu Nafi mbay dafa teju ci baa papa musa foo oh, ne Ousmane mi yoros yoros dem ci papa musa jël caabi ci ñu koy defee néegu Nafi mbay actuellement ñu ngi fofu dama nga xol lan. ma ngi doga gis nit koy di jëntiwuñu lu ko rey di nan la def bu am lan moo xew kenn li jëntiw ko ñu nëpp nëppal ko nii pour lan deewu Cisco ngay wax waaw deewu Cisco police mu ngi ciy def liggéey bu am solo te yaakaar naa ne piste bii ñu am fii fan dinañ xam fi dëgg féete bu dee loolu kese dala la sa xel te xam ne dëgg dina leer ci deewu Cisco bi waaye sama problème mooy Xadi nga ne ak usmaan ñoo ngi néegu na fi mbay tëju dem ba tey maa ngi ni dem feug len ndax man li mbala maka gem sama beut bi may ma ma ngi dem va bien. Nafi Mbaye daa ñëw. <laughs> Nafi bu doon ñëw yow yaa koy jëli parce que déjà yow yaay bras droit. ah néeg bi li ko ubbi laa xamul ci. lu ubbi néeg bi. waaw. man maa ko ubbi. waaw dama la soxla woon. ah bon. waaw. waa jàmm la. jàmm la waaw. àgg si saal bi maa ngi di ñëw. café baa ngi nii. merci. Maîtresse Osé mais Osé doo fay xadi mi lay nuyu. man kat damaa tiit paa dégg wala maat man la samay nopp neexu. Osé gis nga condamné bi ma la daajaloo tey la fees jot na nag ma wax ak lu mën a dugg sa biir bopp bi Ose yow dañ ne la ci soxo nga sant wala mbay nga sant wala ba nga sant te yëguma ko ba nga nekk ci suñu kër gi lu nekk nga dugg si lu waaye di def nga jiitu taxaw si kanam wala yow da nga fàtte lan moo la indi woon si kër gi boo ko fàttee mën naa la ko fàttali de maîtresse Amina nga école tëj na toogal sa kër mais bu fekkee ne da nga bëgg tëj ba pare bëgg topp suñu kër gi H24 guddee bëccëg wala amoo loo def au moins que nga dajale sa xale yi defal leen cours de renforcement. gis nga cours de renforcement yooyu ngay wax yéen ñi yéen ko yeewu yéen ñi bindoo ni tama. ñu tëggee leen ñaari bor te yow man Ousmane sa mbon tey la ma lèr yow kon li nga doon kaf ak Cisco nan ko dé won tay ma doon say jabar ak yoy noonu kon yow sa dëgg nga nékkon motax nga doxalé ni nga doxal nak ak xadi gis nga loolu ngay wax non sa gat nekku ci est-ce que may dégg Cisco sama frère la du sa frère te épi déna dee problem? le problème lan la te lima def du lu bes te c'est pas la première fois ni diko def sama frère la bu génnee aduna amna droit té njabotam te lolou sa yonne ko ci <laughs> té njabot té nga len kay mais wo fi ben njabot nak jabaram bi nga té waye nak Ousmane jotna ñu yobul la ci penc ma di waxtane buñu paré ciap la di woné Ousmane ki yow la gis nga li nga wax ni ci delu waté yow sa tank tay nga kay gëjë dëgg ci biir kër gi suma la ko waxé war nga ma gëm na mm. li ma lay wax de suma bëtt bi yama ko bay gis nga naka la fëgga neeg bi Ousmane daldi ubi, ubbi def peñuwaaram bu weex kal mané dé taway mu xarlo ma ci salle bi ñew day toog xale di ko fekk see kaasu café bi te naan ko paa kafe baa ngi nii. dégg ma paa nga wax de wala waxoo loolu. paa café baa ngi nii xadi damaa nuyu dama choqué ba mënumaa wax damay ŋang di xool xadi. Hmm. Osé lii da maa ngi koy dégg ci kër gi. mais wóoruma woon. moo tax mënuma cee wax na la wóor nag tey ndax lii maa ko gis waaye nu ñu def bay fanaan neegu na fi mbay. nan lañu def ba am accès bobu man loloy sama problème motax papa Moussa rek lay xaar ay man mi ma tiddi mëno jaxna tay ba dab ma voilà ñew na sax mom li lay seet yëpp ñu ngi ne yow pourtant néna la fekk ma ci kaw meye ba jam lan mo xew ba ngeen taxaw fi xam nga ne mos jam amu fi kër gi ka bi fi am papa Moussa ban ka yow ka bi sa kaa la wala sama ka da nga mën xaar ma waxal ko sama bop papa Moussa yéen taxaw la yeen lan mo xew ci kër gi bi ma defaree sa néegu yàlla la dernière fois du yow laa jox caabi bi nan la def ba nekk ci loxo yi Ousmane. kon loolu moo tax ngeen ñëw taxaw fii di waxtaan mais loolu dara tontu Ousmane fu mu tëddoon keroog da doon taw nag balcon bi am ndox si la ñëwee nag abu ma caabi ji man xam loolu dara nekk si moo tax ma jox ko ba mu tëdd fa. def nga def nga nag erreur boo du rectifier ndax Ousmane buy fanaan ci biir néeg bi loolu du yoon usmaan fanaan foofu doyatu ko de moo xadi ñooy fanaan ci biir néeg bi. ai papa Musa wallahi dinga retan mo yow yaay retan yow yow metre yow tamit na tuddu Ousmane lu mu bëgg bëgg jigéen xanaa dina fi rom tante sama tante xadim kami, nga xam ni moom ci état tamit nag xool baax li ngay wax maa gis xadi ak Ousmane ñooy fanaan ci biir néeg bi dama fay kii li muy wax am ah papa Moussa ne wax dëgg yàlla daa neexut a dégg rek mais la osé wax nii la wax te osé lim wax ni dëgg la. Eh, ah ah fan nga jëm pan nga jëm. yow lii ma la wax boo demee àkki Ousmane mii wax ko ko lu muy wax osé ko fen moo tax coow am ci kër gi loolu laay bañ dangay xaar ba gisal sa bopp ni may samay bët mayee say bët bu la mayee noonu nga attaqué leen su boobaa ci lay safe waaye soo ko defee dañuy naan man la déjà man moom may menacé. wona sa yaay ba wax ba bëgg ko ko wax mais boobu ba tey jotuma ko téléphone am day sonné waye heure bu ma joté dina ko wax li am ci kër gi su boba nak ñu réglé ko. en tout cas dal bo leen bëggé dégg dëgg ndialo mom baaxul ci kër day délo kër ginnaaw. Tonton Ousmane Tonton Ousmane xoolal dafa am quelque kii yu may lijjanti rek. su paree incha allah. si dinaa dinaa ñëw. t'inquiète pas dinaa la rappeler dama xaw a jàpp ni dégg baax na incha allah waaw Moussa yow xanaa fekkoo mu may wuy téléphone. li nga wax nii wax nii rek lan la. ma ni kër bi ma doon laaj keroog lan nga koy doyee. waaye yow Moussa yow laajoon naa la depuis hier kayit gi boobu ba léegi indiloo moom daa neex waa tonton Ousmane yow lan ngay doy kër kayitu kër gi may laaj Moussa loolu sa yoon nekku si kayit gi dama ko dama la ko laaj demal nga indil ma ko <laughs> yow nit nga wala golo nga tonton Ousmane comment ça fait que sama papa dee même pas un an ngay teud neegu jabaram rawatina ngay sekk ak jabaram bi nga xam dafa nek en état yow soxla woo lol Papa musa man ngay waxal. kan kenen mo fi nek musa sa sa voix que ne léegi nak mag nga parce que nat nga sa dole ba nga ko nga ne da ngay ñew gis nga li ngay def ni nak def nga ko sa pap mu jall nga essayer ko si sa yaay jallul nga bëgg ñew essayer ko si man gis nga man li nga may def ni bo sa pap nekk si pap Ousmane la bëgg dem affronter ko dina na la bul dem parce que xamna mo bu baax man ak moom ñoo fawandoo te depuis temps booy ba ni ñu toll ni fu ma mas a mom dama kay nuq ba mu dul gis nga li ngay wax ni waxoo dëgg sa gémmañ ma sa morom yow yow da ma bëgg a yëpp wala man damay sa sa morom damay sa morom ah oh. damay sa morom da ma bëgg a